bokk yi gannaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu boole jéggal di fàttalante ak sunu mbokki jullit yépp eh, tomb boo xam ne baree bari dañu ko woyafal lool bokk yi seetlu nañ ne léeg-léeg dañuy génne dara rekk yónnente ko mu tasaaroo na gàññ ñu ne ku ko xool rek dem aljanna walla ku ko yónnee nangami nit danga dem aljanna mel ni aljaan na moom day fowukaay boo xam ne fowukaay la rek te bokk yi fu dul aljanna sax fii ci kaw suuf si dem fa yombewut noonu ku ne xam na ne fii ci kaw suuf luy misaal aljanna mënees na ko fee xool gis ko am na ay wàccuwaay yu ñu def ci ay dëkk mi ngi aju ci ñu dëkk ba toll bu dee dëkk bu mag a mag a mag a mag ñu def fa bu toll noona boo xam ne lépp lu bakkan bëgg dafay nekk ci yaatuwaayub néeg ba ak yam yi àndal ak ya ñu fay jëfandikoo waaye yooyu bokk yi doonut ne nit da lay xëy tàggu rek na la maa ngi dem dëkki foofu dëkk fa dafa am lu mu laaj dafa aaja kaññe ba yor lu bari soog faa sañ a dem di fa dallu ji te mi ci kaw suuf si rek génn suuf mu mel ne fa nga xam ne kenn bëggut a wax jëm ca yàlla ñu ci yàlla musal moo gën a yomb dem fuuf ndax nit mën na xëy tàggu waa këram ni leen mi ngi dem ca kaso ba te fekk defagul dara day génn rek def dara rek ñu jël ci yóbbu ci kaso ba moo gën a yomb dem fuuf moo tax bu fekkee mooy aljanna ji suñu borom di wax ci kër alxuraanul karim yonent bi misaal ko euh, ni ko ko yàlla wane ba mu mën a dugg ci boppam ñam doon waxal na jooju moo taxoon saxaaba ya xëy di gan gental seeni kër ak seenu njaboot ndax ndax bëgg bëgg ca lu koy joxe ñu ne mu jaral leen ko léegi nag dégg nañ koo dégg-dégg ba miin ko dañ naan xool rek dem aljanna yàlla mën naa maye lu nekk waaye li ñuy bañ ci ëpp jullit mooy mu topp yu yomb yooyu rekk ndax waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nee na aljanna li muy neex neex li ko nit di bëgg-bëgg ndax yem làmbool ci am noflaay suñu boroom mi ngi teg ci yoon wa ca jëm ay gàllankoor yu ne gàññ ay dëkk ay pax ay rëng-rëng yoo xam ne ku ca bëgg a dem bu wutuur rek mën naa far tayal na ndax wi yoon dafa mett jëlaluma ko waaye safaan ba nag yoon wa ca jëm moom ay bànneex kese kese kese ka ca jëm yàlla ñu ci yàlla musal moom lay dajeel ba jekk-jekk rek ne ana fuy fii fekk mu weesu aljanna yoon wa ca jëm daa bari pakk bari ay dég ndax lu bakkan bëgg dañ la koy tere lépp loo xam ne daa neex ci day saf ci gémmiñ dañ naan la bu ca xër fépp foo xam da nga fa dégg coow euh, rëg-rëg joo xam ne day yëngal ay cër dañ naan la bu fa dem waxuñu dem waaye bu ko dégg sax ci sax ay nopp lépp loo xam ne moomoo ko loo ko bëgg-bëgg lu mu beggani beggani naan la bu ko sa loxo laaw ba yañuy tere yépp àgg loolu nag lu metti la moo tax seytaane jékki-jékki rek dugg foofu di fexeel jullit yi léeg lekk mu génne leen loo xam danaan lii ku ko teg bët rek dem aljanna te ñi la koy yónnee mënuñu laa wan loo xam ne dañ naan la boo ko tegee bët rek suur te mi ngi fi ci kaw suuf ñu di ko gis wala ndox maa ngi nii waaye boo ko xoolee yenn xool yi nii rek màndi ndox te ñi ma ko junjee léegi ci tàmbali bi nit mën na xëy tàggoo te kaso ba ne ma fay dem moom dugg fa te mën na faa yàgg te moo ne defagul dara ju jëye këram ci ay jamono buur mas naa dajale waa tund bi ci ndaje moom leen soxla woon ba mbooloo mépp daje am ci koo xam ne mus sa def dara kenn xamulu ko dara ci lu ku mu mas a tooñ walla ku mu mas a def lenn waaye ba mu demee daal ba soxna su buur ne tëll génn amatul jàmm dana ko jàkk rek fu mu jëm di ko xool buur seetlu ko daal ne kii daal na jege si nii sama pegg mu jege si mu génne maq doom ngam yoroon ne ko ni ngay xoole sama soxna neexuma ne ko tëf bal mu ne këpp ñëpp sëgg ne ginnaaw ko xool bal dal ko na ñëpp sëgg mu ne da ma bëggut xool dama leen a neexul xool ña gën a metti aw sëgg mu ne leen tëf bal ñu ne këpp kon amub sa daje ko safaan moo gën a yomb fuuf daje xéewal yàlla noonu yàlla xiir nag ci yoon wa ñu daje xéewal ba faw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nii moom mi waxoon ne yoon wi jëm aljanna ay pakk kese kese moo ko wër ak yu naqari ba ba nit kii di jéggi dem aljana yoon a ngi nii wu neex lool nooy lool waaye nag fuy fii dong la borom di mujje ndax yee ñi tere yépp dafa nekk yàlla nañ ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne bi yàlla bindee aljana ak sawara dafa woo jibril ci mbindeefam yi la bokk li mu koy jege-jege ab jaamam la ne ko demal xooli aljanna nam mel ak nama ko waajale nama fa waajale ña fa nar a jëm si ëllëg jibril dem ñëw ne ko feede yi ku ko xam na ma ko ku ca gis la ma gis ndaw fu nar a fees feede fa la ñëpp jëm ndax la fa nekk kenn mënu koo ñàkk suñu borom daal di joxe ndigal ñu wërale ko yañ ko wërale ci ak njëg ndax fenn fu nekk ku fay dugg euh, barab yaa nga fay tooge mi ngi aju ci ni sa poos di sa rek dañ naan fii juróom-benn fukk la mu fi yàmm maay ñu ne fee téeméer la mu xaw a tuuti ñu ne fee ñaar téeméer la mu xaw a ñu ne fee junni la mu gën leen fuuf ñu ne fee nag ku fu bëgg a dem moom danga nga lemmat ci ñeenti junni euh, Seydina Jibril ne ko ndaw fa nar a fees mu daal di koy wërale yam ko wërale kenn ku ci nekk fa fa bëgg a dugg ak njëgam waaye lu ci nekk njëggu diis gann la ndax waa ji day moom bakkanam ci anam gu nekk di ko digal di ko tere waaye doonul koo xam ne bakkanam a moom di ko digal di ko tere ba mu joxee ndigal ñu teg gàllankoor yi ci jëm mu yónniwaat Jibril ne ko demal xoolewaat ba xam na ko bàyyi woon ak nam mel nu mel léegi mu ñëw ne ko fee daal damaa yaakaar ne dana fa yàgg te kenn du fa dugg ndax tem fa yombul mu ne ko demal xooli fa ca des aljana ak sawara ñoo fi nekk bu ma ne fa des rek foofu laa ci jub mu dem xool ko dellu siwaat mettit wa nam mettee ndax nit ñi bu ñuy tëdd dañ leen di tegale amut lal amutul basan amut dara ñu féete ñu gën a néew doole daal ñooy féete suuf ña ña leen ñëw ne ko ah fee dana ma ko gisee ku ko dégg te ànd ak um sam am xelam damaa yaakaar ne dara jarul kenn mu defa dugg na mettee mm-hmm. suñu borom joxe ndigal nekkoon léegi nañ seet nu fa nu fa aw gaay di demee ndax la am la anna jahannama la wax mina jinnati wa naas te ay waxam ne tuxu ñu daal di koy wërale lépp lu nooy ak lu yomb rek ni ko gaay yi di wax bëgg lu yomb ñu bëgg lu yomb kese ne ko jàkk ay bët lépp lu ñu bëgg lu mu gën a nooyee nu mu gën a jàppandee nu mu gën a jàppandee rek nu gën a jàppandee lu ko ñaari yoon dama xamut nuñ ciy tëgge mu bàlla nu mu gën a jàppandee nu mu gën a jàppandee rek nga xam ne waa ji day euh, gunnaanaat rek ba ne fa sarax si Sayyidna Jibril ne ko gis naa ko de waaye daal ba ma demaatee ba dil si ak yee ko wër damay yaakaar ne daal dana jafe mucc moom damay yaakaar ne ñëpp fa la ñuy far jëm bàyyi fa ndax neexit bi ne ci yoon bi ak bànneex moo tax aljanna ay caaxaan ku ca bëgg a dem am na lu muy laaj aajana pas-pas bu dëgër moom la aaya boobu wax ne ku bëgg dem aljanna ëllëg day jaar ca yoon wa ca jëm ci pas-pas ci ay wax ak ci ay jëf yoo xam ne yàlla dong dong mooy tax wa man arada al axirata wa saa laha saayaha wa huwa muminun fa ulaika kana saayuhum maskura yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag daal koy firi li ma ci xam daal mooy sama xel bépp jiite réew mi tay mën na ne na diw dem dëkk ci hôtel sangam bi gën a cher waaye bis bu ñu ko follee nag su su soobee ña la fa dugaloon ñu ne ah foofu la contrat bi am bu fekkee ka koy wutu yeesalaatu ko te loolu lu jafe lay doon ndax ginnaaw waaye kële nga woon ba tax nga dëkk fa faw moom itam day xoolaat ay dëkkam ay waayam ne sa waaye almané bi tax dama ko soxla waaye bokk yi kaso ba kaso ba moom kafa fa dugaloon ka fa dugg ak jógeem fa bu du tey man faa continuer nekk ku ñu àtte ñaar fukki at ña si ñawoon bañ tëj ko fa bu ñu leen follee it du tee te bay wéy moo tax sawar moo gën a yomb dem fuuf aljanna moo taxoon mag ñi mag ñi nag su ma ko waxee buxuma borom at yu yàgg yaa waaye ñi nga xam seen pas-pas daa dëgëroon rek ñu bëggoon aljanna ji yonent bi dem nekk saxaaba yi nekk fa ñu baax ñu nekk fa yàlla dige ko dig ko ñi nga xam ne demaguñ daana tax ñeme wuñu woon a nelaw lu ne gàññ sëñ bu mag bi laaj ko ndax da nga nelaw ndax woon na nit waxtu wu nekk mu fekk ko fu ne koo xam ne dañ ko fëgg ci ay nelaw mu toxal ñu dem fekk ko mu toog njoofeer la yàkkamti ko lool wax ko lan koy wax fekk woon na diw fi baram am ko ne ko waaw da nga nelaw ah? mu ne ko ah kay innama ana basharun mislukum la yonent yi daan wax waaye du ma ko nekk fenn damay dem daal ba mënut a ñàkk yàlla koy tegee mu teg ma ko rek waaye fu mu yeewoo duma ma du ma du ma tëddaal damay dem ci la ma war a nekk waaye négal ba añit daw ko yendal fenn waxu waxuma la ak lay topp ci añ naan lii naan la négal ba rek daw ko teew compte bu bëggee compte ndax wërsëg mook boroom ñoo ànd fu mu jëm-jëm noonu lañ jàppe woon seen pas-pas digganteem ak seen boroom dawuñ xaar kenn ci lenn dawuñ xel xaar dara ci kenn ak ci lenn su ko defee nag ku leen di tuddoo yow am nga sas wu rëy rëy ndax saa bu geesoo dalaa war a gis ñi ngi dégg démb rek ñoo xam ne dañoo mel ne ñii lépp ba tudd sëñ bu mag bi wax ne am na ñaari ñoo xam ne seenum xel daa neexutoon kenn ki day xool photo ba yàgg mu ne waaw kii moom day taxaw rek du toog mukk kooku ne ko kii bu toogee ay am kii bu toogee adduna tukki sëñ bi loolu du waxi doof waaye da dégg kuñ naan it loolu saa ñu fàtt ñu fàttaliku da ngay dégg kuñ naan bu sëñ bi dellusiwaatoon du soppi aw toog yi nam bu sëñ bi ñëwee fekk mu toog faaw mu soppi aw toog nam ndax sëñ bi toog lu dafa dox la mm-hmm. yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iri